douze hommes lekk gées yaa moom lekk gée pomme de terre si mi gées yaa moom lekk gée gaani de gaani wooy gées waaji kenn du la jam naa booy nan wooy Elton uma yennu nga yennu fa yendoo daaneel mais nag foofu xaw booy danoo jum danoo waroon a wóoy elto bi nga lekk lool ba mu jeex foo yennu yennu <laughs> non non du wax man damaa am maîtriser sa bopp. ba ba Jofal bàyyi Elton bàyyi jàmm. mais sama bàyyi la Elton ma bàyyi la Elton. waaw en fait Birima man li ma ko wax mooy tey macha allah dañ amoon invité bu bu spécial. macha allah tey yaakaar naa li ma rey bañ dalee def émission ba pare ba tey réew ma ko. donc lii. li mu war a ree ci at mi yëpp la ree ci. jiitu mere naa la torop sama xarit. déedéet bu ma mere. ay ca gaaw gaaw gaaw bu ma mere donc maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. di la a baax mm. ah, waaye tamit di kontaan ah, moo di ah, Diop Fall mm. kontaan tamit ci ki nga xam ni moo di Birima mi nga xam ne moo taaral émission bi macha allah yàq benn yoon mm. di remercier aussi ñi nga xam ni ñoo nekk régie Lamine ak Abdou donc yéen moom amuñu lu di leen jaajëfal à chaque fois donc seen liggéey moo nekk liggéey boo xam ne moo gën a métti ñun duñ ci dara parce que yaakaar naa ne tey boo leen nekkul woon foofu image yu du baax son yu du baax donc dañ leen di ñaanal rek yàlla may leen gudd fan Euh, réaliser li nga xam ni euh, moo di seen rêve donc